كيدكم كرامر لاي هم غفروا روشي يوكي كان لوخ مكان لا kan la ya de sama xarit la dafa baax nag waa baax na te dafa oyof tamit wangi nggak boleh nggak salah wangi apa yang ya? lagu mau di sini nggak aku lanjut nomor kamu mau merasa berbeda dah mungkin aku lanjut nomor kamu berada si japle merenggiri allah sarah marek pas kekimo il tank, tang j'en ai tellement besoin l'homme se diable na khep na ko numéro de classe la xolal bu baye dara sarah marek deg asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi di leen niw di leen ziar amaat mbégte bu baax a baax a baax di jàkkaarloowaat ak yéen seen rendez-vous xool ak xalaat dikkaat tey ñu am mbégte indil leen beneen histoire bu bees jamono yi réseaux sociaux yi dañoo xew lool xale yi jigéen yi ku ci mer statut ku ci kontaan it dugal statut am na ci ñoo xam ne sax bu ñuy xuloo wala ñuy gaaruwaale ci statut lañuy jaar suñu histoire tey bi histoire mbëggeel la mbëggeel bu tàmbalee ci statut. David. Aïcha waaw mais naa la. mais maa nekk maa ngi rek yaa ngi dafa ñëw. fekkoon na sa kër moo fii dafa ruqee. oui booy fan xam nga rek dama nekk ci chantier yi booy instant bi chantier bi laa nekk du supervisé quoi da ngay ba tas. da laa gëm da laa gëm job mais sinon ça va. mais noonu la sax ça va naaj ne. cool mais yow temps yi nu mu demee nii Diané. ah ci la. kar kar kar bu dul jeex. li nga ma doy jàmm la. jamu lah kayak mais kan dengan next sebelum beli kayak aku mau bëgguma jël lo temps lu bari. gak doo nga apa nih bayang apa nih bayang yi bàyyi bayang ma nag. bàyyi da nga am xarit lah bees. non non yàlla tere yow tamit nag. boo toogee dégg si loo nekk. non si bu baax a baax. sama copine la. mais kali bi moo la de. Eva dia pergi sa statut rek. topp ma mu ne ma kii mooy kan. mais est-ce que xam nga ne xale bu sooful booy kii jël na sama coppati de. si <laughs> wuy relation góor ak jigéen moom xoolal dama see waxul dara. amical waxuma si bu nangoo ma kepp ko daal garaaw jox ko sama numéro loolu du problème. lan nga wax. ah mais koo xam jëm nii léegi léegi te bu ma demee dinaa ko ko wax de. <laughs> da efficace quoi man loolu doo nga ma neex si yow. maa ngi nii rek wuy ma nañ déggante ah, après. waaw d'accord dafa ne xam nga da ngay rey ba après ñu déggante ok waaw merci kontaan naa si visa États-Unis dafa génn dañu dem États-Unis waaye dañu dem États-Unis suñu eggee ñu fël fëlaale sànneeku bras dessous bras dessous États-Unis saale tant que duma la wax su loolu rek sa cousine bi moo ma indil sama cheveux bi longue de moom rek ma xam ne rek sa cousine bi indaale na ma sama talon yi xam nga damaa bëgg talon surut moom ma la leen ba ñaaw wax foo ne ndax gis nga clip Rihanna bi keroog foo ne yi talon mu sol fu ma jaar jënd ci jox ma numéro bi jox

nee na daf la nopp yow ne bu nekkee noboo ko wuy ma jarul sax ngay laal numéro numéro moom bu ko sax xalaat ma la koy jox damaa lay wax lu leer bu nekkee noboo ko moom numéro jarul ko sax nga koy xalaat. loolu wokkatu bu la. li wax ni nga yaakaar yow bi naa ko mu dem xale bi coofeem rek roofe doore beurre caramélisé. aywa foo ne yow kii gis nga bi gis nga am. moom maa doon xas bëgg jigéen xoolal nekk te yow góor nekk bëgguma ah. laa bëgg jëm boppam sama xol bii lay bërëj bërëj yi di ko ñam ñam di ko booboo tu me donnes son numéro le temps perdu ne sera pas traduction tu me donnes son numéro et on passe à autre chose hein. sa wax bari na ish jommi naa man jëlee numéro yi moom David moom xale bi ba tonton ko jël na sama sama ah. sama kii sama copine rek man di ko bongo waaye ñu merci mun ngaa dem ndax may dàq hee mun ngaa dem pour xalé bi fokh ma tong ko di ko ñoñol di ko boobu di nga ma bu baax yaay kii dama koy am dans l'or defante ak mom yu baax waxuma dara mais yi bar gëj ko gis man de terroriste rek la ran yam pour gis ay baar sañse nii merci jugal nga sangu ji ah ñëw sang ma ci jugal sangu ji dama booy démb dama demoon soir en plus sax booy yaa ngi rafet merci jugal sangu ji jugal sangu statut moo leen boole statut social moo tax ñu wute ndax kii dafa am lool ki ci des ñàkk nit ñi dañuy faral di wax naan dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd dañuy dem xool ba xam David ak Eva dinañ doon exception ci boobu la règle Wow. waaw mais néeg bi clean na ak xet bu neex bi sax sa jabar mo fi jaar ah, boo yow da nga doj quoi billaay man loolu rekk ma neex sa yow Ba hmm. wax loolu Ba no.

jaar ci boutique bi jënd café du lait bu fàtte nag boisson ndax man j'ai soif ah. sa lii booy maa ngi fi benn la 500 mun nañ ci ndekki mën ak yow. tu sais ce que je déplore le plus mooy góor bu rëy. waaye li ngay def nag jënd rek say 3000 gain ah xanaa du rek li mën na si coob booy. yow sa li ngay wax teel nii nga dem jënd nga ñëw ñu ndekki. xanaa xiifoo. ok. Guri ya dördün. D'accord. Fiz boa ainda não? Boa bem milhões. Não. Why you? croissant yi ma la waxoon pour nga jënd ko. ban croissant. benn ndambe laa jëndal de. lan benn ndambe. jëndal. yow lekk wundi nan nga ko mën a jëndee. ban lekk wundi da ngaa mënta bàyyi saboté xanaa du lekk pour sa biir fees donc <laughs> xoolal gi nga lii lépp 500 francs laa si dépensé fi mu ne xoolal économiser naa la 2500. <laughs> Hola. du dañoo war a génn si kanam gis nga man Da dama jogé Bambay pour ñëw Dakar daan mu doole yàq waruma te duma conseillé kenn kuy and ak man muy yàq yow sax li nga eh? dëgg ni est ce que loolu ngay dund Dakar? Li buñ ko lekkee buñ génnee ci biti kenn du xam luñu lekk Buyurun efendim. Ben de ki. Yatağı Thank you. sama sans style quoi wala jappelé ah eh, non man gisuma ma def sama ak modé ya? eh. <laughs> ni nga nama yow la jappelé so modé mais yow eh yow sa patron bi fuyen na la dé ah ouais mais yow ma lay jox lagi, pour nga pour nga weekend Bukan ñu balade ak auto apa? bëgg naa sax mais fuyan. laa fuy lu la voilà sama patron yaa gën a fort loolu dafa leer da nga auto bi sama sàcc ko yóbbu la man ak moom da di benn tamit loolu xol bi la en plus sax yow fa lay bon au fait dama ñu dem def shopping. shopping. dama bëgg a sama garde robe. garde robe te dama bëgg lu ma sol. mu nekk loo choisir. léegi yow non si taamu ak sama yu mode yi nga naan ay lan ak la nga mode ne daal rafet na macha man daal wóolu naa sama bopp fi mu <laughs> wuy ma. Mhm. xanaa xamoon li ma sol lépp fëgg jaay la. fëgg jaay e kese laay sol ni matinal bi ni lënd bu jotee nii xoola matinal bi nga dem rek fajaru leen gaay di dajji bali boo di nit ñi di ko xëccoo ma jël man xëccoog benn copain gain cent franc bu di cent bu di deux cent nga am sa tiset yu mool tuba yi rafet nga <laughs> comprendre sax man de musuma sol fëgg jaay musuma sax xam nu muy mel ba fañ koy jaayee sax te sérieux la et pourtant lia ngi ci sa bien man musuma xam ne la ngay sol ñu ngi dem de ah. mais beneen yoon Colobes laa la yóbbu tànnal la yére yu baax <laughs> takkal seen kër. baax na <laughs> man li na fa de. ah mm. lépp di nga fa gis. Ah, kon baax na. sama natt nga yow yaay sama seytaane. ban taxi nañ xaar kalando mu ñew 3000 francs da fay cher boy aller retour bi rek 6000 la mais bu dé kalando bi 100 francs lañ koy fay wacc poste fan lolu problème xam nga la may nañ jël taxi hmm parce que taxi mo gëna classe en plus mo gëna a gaaw vite fay ngar fi ngay e def yow da ngaa yàqam man lu yéex lay wër déjà dama bëgg waxtaan ak yow ci yoon bi non buñ demee ba poste fan ñu daal wacc dox déjà sax kalando mi ngi ni ñew xam arrêté ko mais mom sonna franchement dox lo ngom may bëgg a hmm. mais bon balaat bi neexoon na trop. loolu la ci bëggo tey ko la bàyyiwul ñu jël taxi te xol on a dépensé que 400 francs au lieu de 6000 000 aller-retour te xol mo la na faar gën nga say parents dañoo ñafé xari ba am li am tay kon waro ko diko ko yàq. ci hmm? sam papa ji. dans la vie il faut apprendre à souffrir parce que demain, xamoo lan je xaw en tout cas je ne te remercierai jamais assez bon oh, je te laisse à demain ok merci bisous prends soin de toi bye au revoir allez bye tut man fan laa jëm fan comment je vais avec mes projets man mi nga xamante ne ci sama salaire bi képp moom laa yaakaaroon pour économiser samay dépenses sama location fan laa koy faye weer ak moroom mi nga xamante ne ñu jege Oui bébé. Oui, Tu m'as manqué énormément. Sérieusement <coughs> Oui, c'est vrai. Parfois, ça aussi Je ah. Hmm. ñu pas tu un man ak yow xam nga. bu ko defee ñi ah j'ai un cadeau pour toi. un cadeau encore. Mhm. man la moto, à chaque fois me may rusloo quoi Tiens, c'est pour toi. C'est encore C'est Michael Woods. Oh my god, mais ben, Attends, je vais te la mettre. Hmm. Je ne kan pas si war a téye moroom mi sax. nañ jàppante rek. loolu nga gis. ça te va très bien. franchement je tiens beaucoup à te remercier quoi. parce que ça fait trois mois bébé. ma perte sama job bébé manqué wu ma dara maruma xiifuma sama argent de poche sax yow la weer bi balaa muy dee sama ma demee ñu ne ma jaar nga ko ba fay ko sérieusement wama sa fay daal Monka ma la ko defalul kan moo la koy defal oui c'est vrai mais eh gis naa ne yaa ngi may jàppale de hmm. surtout au début bi ngay sama néeg noonu nga génne 3000 man yoo xam ne ma doon jàppale te xaw ma si woon dara. xam nga nit su fekkee da ko bëgg. Mhm. da ko bëgg te yàlla rek a doo xool lu am doo xool lu ñàkk da koy jàppale suturaal ko. bëgg ko te man lu ma la defee lu dama ko amul. gis naa loolu. moo tax fi mu nekk nii xoola amatuma dara lu ma lay wax franchement parler <laughs> en plus euh, dama bëgg a dem village quoi dem si maaraay pour ñu xool ma sama ay affaire tu te rends compte. loolu nga gis. ah oui. bon je suis entièrement d'accord mais bul fàtte ne nit ku ne dafa am destin. et ça fait partie de ta vie c'est ton destin. gis nga fii yàlla moo fi nekk te yàlla dina la jàppale incha allah rabbi am yàlla yàllaay buur. ñàkk dina baax incha allah rabbi. bon. dama bëgg a ñëw dugg si ndoxu xorom bi xam nga ne lii xorom rek la. comme ça nag mu mën a génne li nekk si man cat la ko faa mu deñ non faa eh. deñ wuy ma defal naa man nga yaakaar naa la bàyyi yow nga dugg ci bi c'est impossible yow indi sol xamul ndox la fi yow ngay la bul kon kon wéro da ah eh eh, eh, eh sénégalais dafa taamu bu gisé lu ko dem sétlu ji David gis na lu ko jaaxal ci àddunaam ndax problème yi bari nañ ci kawam lool ba tax mu deside dem seetiwaat ñoom maam waaye jamono ji ñu toll diggante yu bari bu ñu yàqoo mën nañu ne ci seetkat yi ak ñi ñu ko sañoo wax ñoom ñoo ko yàq hôpital yi naka waa dëkk bi mbaa ñoom ñëpp si jàmm luy say tànk ah man de yaay Kumba wax dëgg fa yàlla ma nekk de dama fa am ay jafe-jafe yu metti sax li may dund fan yi metti na trop ma ne daal naa ñëw si dëkk bi suma ñëwee ma daal gis nga sétal ma xolal ma la mo nekk ci kaw lolu jaaxal na ma trop nopi lepangi ni hmm sabab yow de dom santal bi nga ñëw ak sa bakkan ba ci man santal ha ah. gis nga li nga nekké yépp du ken ken ken kula ko tek kudur sa choro lolu nga nekka ya kuma lo bëgg wax fof dama ne lepp lula dal suba ba ngon sa choro lolu lako tek la wax lula dal suba ba gudi mom ci mom momu la joge motax tay aduna yep won la ginaaw nga ñak sa lepp te gis nga bo continuer ak mom di nga dem ba doto gis ken dara doto ko amati ci aduna te bu boba sa dundu gi de kay gen santal yalla nak ba nga ñëwaatee ak sa bakkan ba ci man nii mais yaay kumba kooku dama koo bëgg yaay kumba kooku lu ne la may defal lu ne la may defal ma ne nga noppi nga naan dama koo bugg da nga bugg koo xam ne da laa bugg a lor waa léegi lan mooy solution bi kon waaw kay len de mun naa nga ñëw ñu dem ci ginnaaw ma sang la waye buma la sangé nak sa ndaw soos dang koy bay bay budul lolou da ngay dé li mu nak rek la la wax nag te nga gëné dérem bi tégal mako fi waxuma la ñaat témé dérem la wax bu féké amo dérem nga nga

Ça s'est très bien passé, j'espère. Où est-ce que je dama bëgg ñu waxtaan sérieusement. waxtaan sérieusement ba jàmm la. tu yaa ngi fàttaliku la fois passée bi mu lay waxtaanee na la dama bëgg dem village. gis naa tante ko moom. wax na ma lu bari nag ma xam ma lu bari mais dara neexuma si. wax ma ne ma tey lu toog sama buntu wërsëg yow muy la mu xamal ma tamit tànk yaa ngi fi du ma a am du tekki lu ma am si yow lay ñëw samay xarit dinañ ma wan ginnaaw samay waajur sax dinañ ma wan ginnaaw yàggul dara barki dem laa per sama liggéey ndax yow te Eva mbëggeel neex na lool mais sama avenir moom ma ko gënal sama bopp ma la gënal du bañ naa la funcionan. me la relación. عشان ما في البينة لا لا يوخني ما تجي وهم من بابا تجي وهم من لا يوخني تجي وهم من تجي وهم من لا نجي تبدا بالبال لا لا ما كملنا لا نجي تبدا بالبال وهلا ما لما لن ينجتي وهم لن ينجتي لما لما تهدى بالبال لن وهم baik dafa dem sering sering sëriñ sëriñ bi ne bu jigéen bi ngay àndal seen biddéew àndut tànk yaa ngi continué di nekk ak mom sa dara du baax nga continué di nekk ak moom yow yaay jëm gannaaw xale bu jigéen day avancé David moo la wax loolu David depuis kañ wuñ ma David depuis kañ di commencé di gëm affaire de sëriñ biddiw depuis kañ di ko commencé di gëm na Elva na ah oui muy muy buñ bu ko demee ne nii man bu ma jógee dinaa waxtaan. waaw dinaa waxtaan. waaw dina waaw dinaa waxtaan la moom. jarul sax ma lay wax mere naa la pour wax la David yow jëf bi nga jëf Eva na nga ko mënee def à David àdduna bi ñëpp di coow seen diggante nga xëy xëy rek nga def ko jëf ci bon jëf ci bon bi nan la la mën a dalee yow yow. dara ëmpoo la si la xew lépp. Eva sa doomu ndey lu ngeen fi moom financé woon. yaa may dégg mu nekk sama doomu ndey nag tey jii moo fi tey jii ma am fit tey ñoom mii tey di la wax. sama avenir laay xool xooluma avenir kenn tey su ma gisee lépp lu opposé sama avenir dama koy bàyyi. David tay di mu doon nan lo wax rek mu ne la bayina bayina ka ak yalla ana David mom non tay yow yalla nga gëm wala set kat nga gëm man la seeru ubbil ma chéri dama ñëwoon pour baalu sa la ak ak ah, amu fi puisqu'on n'est plus ensemble xanaa sax nga xam li ma lay balle. s'il te plaît ouvre-moi bébé même su fekkente ne suñuy biddéew àndul nangu naa bàyyi sama bos topp sa bos ndax sa biddéew àjjana rek la ma jëmee su fekkee nekk ak yow dina tax ma ñàkk sama liggéey def naa la ngay sama gont di sama xëy Eva su fekkee nekk ak yow dina tax sama xarit yépp woon ma ginnaaw def naa la ngay sama xarit su fekkee nekk ak yow dina tax dootuma yorati dara ci kaw suuf nangu naa ndax loo yor bokk nga ko man nangu naa sama wërsëg yépp ñëw ci yow Eva loo mënti yor man maa la ciy ëppale ndax avenir ak xaalis taxul kenn duñu mbégte mbégte kay mu ngi dépendre su mbëggeel bu wóor te sincère te dana mbégte moo ma gënal àdduna ak la si biiram Eva baal ma àq ngir yàlla man maa la war a baalu àq ndax lépp loo dund ci kaw suuf man maa la ko teg ndax nekk bi ñu nekk je te promets que li des suñu dund dootoo ñëw sa benn morom tu seras mon roi et je serai ta reine ma vie va se résumer en toi su neexee donyakter. Pedulang. réseaux sociaux yi moo leen boole woon kat moo leen taxale yàlla suñu borom mi dara tawul moo leen jubaatle muy rek ni mbëggeel alalu yàlla la moom mi digle ci ne nañu bëggante mbokk yi lii lañ leen indiloon tey di di leen rendez-vous jeudi prochain ci beneen épisode bu bees ak beneen histoire d'amour bu bees ci suñu jotaayu mbëggeel bu mag bi grand amour